football la ñuy gën a wax la plupart que que affaire athlétisme est-ce que nekkul voilà est-ce que nekkul presse bi est-ce que nekkul presse bi aussi seen rôle euh, ñoom bokk nañ si ñi nga xamante ne ñoom ñoo tax ba athlétisme bu fekkee dafa régressé si on peut le comme ça euh, ñoom dañ si participer xam nga <coughs> résultat yi nga xam ne athlétisme dafa waroon a def te daan ko def mhm. euh, Amy Mbacké Thiam El Hadji Diaba ñooñu ñëpp performance yooyu ñu doon def ils l'ont ils ils s'étaient pas préparés ici Hmm. attention ah. ça aussi il faut performance si biti la demoon. waaw moi je me rappelle quand je couvrais l'athlétisme euh, booba temps président Senghor moo ko daan mu daan euh, présider chaque championnat du Sénégal le président Senghor il venait il donnait la coupe du meilleur athlète El Hadji Diaba. Mm-hmm. ce jour-là Landing Sané c'était lui le ministre des sports c'est moi qui lui ai posé en direct sur la zone de Radio Sénégal. Mm-hmm. Euh, est-ce que vous pensez que El Hadji Diaba en restant au Sénégal il peut être médaillé olympique est-ce qu'il n'est pas nécessaire mu dem dans un pays comme les États-Unis nga xam ne ñoom athlétisme dañ si aay mhm. bon il était un peu fâché mais en fin de compte ils l'ont fait te pour que El Hadji Diaba jël médaille bi def na au moins cinq cinq finales ok cinq finales au niveau mondial di participer régulièrement aux Jeux olympiques xam nga problème bi constance ci la bokk. mais si si nos athlètes ne sont pas constants dans ce qu'ils font. du du du dem. seul xoolal euh, euh, ñi nekk en Europe actuellement di def di def athlétisme sénégalais yooyu. lu mel di par exemple. kooku ñoo ñoo def performance fu ñu nekk ñu Sénégal. kon daal Sénégal fii daal boo fi toogee doo def performance. <laughs> Tartan Iba Mar yàqu na. amatul Tartan. waaw waaw waaw. stade Iba Mar est en délabrage. Léopold stade yi ñuy defaraat. dama ne. y a de choses à faire au plan euh, infrastructure ba pare nag. xale yi bu ñuy daw dañuy sol plastique. man damay dem couvrir actuellement damay dem couvrir atlétisme mais damay ñëw xale yi dañu may wër. ma naan leen yow yaay sama athlète dama lay préparer plastique la ñuy sol ñuy sol ay dàll yoo xam ne c'est pas adapté. ay Moussa Ndiaye yooyu ñuy wax ñooñu dañu rey seen bopp ci athlétisme ñooñu ils ont su haut et sang. Mm-hmm. au niveau amuñu si dërëm ñoom ñëpp am na ñoo xam ne euh, Diallo Asfa décédé. Euh, euh, Bouna Bass décédé moi j'ai eu affaire ah mi ngi dund ah kon maa ngi jigul mais j'ai voyagé avec eux dem ak nag ñoom championnat d'Afrique championnat d'Afrique bi ñu gagné au Caire en vingt deux y avait 15 athlètes. 15 mhm. athlètes kenn moo si amul woon médaille muy Marianne Mendoza te pourquoi amul médaille parce que dafa feebaroon dafa feebaroon hospitalisé moo tax amul médaille mais El a Jaba ñoom ñëpp. amoon nañu médaille et c'était la grande équipe où ces athlètes se préparaient en France di dem ay meeting mais fii ban athlète mooy dem meeting wax na ko fond de relance amatul athlétisme c'est-à-dire il faut que ñuy wax li nga xam ne moo war athlétisme c'est la première discipline olympique mais actuellement on est en train de se demander ñan ñooy qualifier euh, JO on se pose la question ça ça alors fi ñuy jeexalee. mooy moom déjà euh, qualifié fi ñuy jeexalee mooy. li mel ni li François Mendy bon déjà qualifié na. voilà déjà qualifié na. fi ñuy jeexalee.